ndax bu Ama Baldé jàppee tànkam le temps que muy réagir dafa daanu. dafa daanu. mais boo ñaaree si tey dem jàpp dem na jàpp tànk dem na sax sonk sonk boo xamante ne song dem bëri ji la bëgg na ko tromper bëgg na bëgg na ko certainement ci xalaatu am euh, ki nga xamante ne mooy boo ñaar bëgg na jaar ci pokotaan yi bëgg na ko sentir bëgg na ko nomba mais loolu dafa am lu koy def. dafa am benn vitesse ak benn audace boo xamante ne moo koy def xool def na fi nag quand même combat bu neex. Mm. jàppante nañu boo ñaa sëq loxo ndajooram bépp ko mënoon ma ko mel ni bâtiment xoolal mm. xool tafaatin bi dundee tànk xool ni mu nangoo. Mm. tafaatin bëreet tafaatin tamit ah. te pek li ma jaaxal action yu boo ñaa di def yëpp tafaa da koy. dafa accompagné parce que tafaatin dafa bëri tafaatin dafa am bëri gars yi nag xam nga tafaatin problème mu tafaatin moom mooy bëreem dafa dafa nëbbu na xeebu ñëpp jiiñ mm-hmm. mais xool lu ko def di ko di ko nii xool fii xool fii la attaqué pour door ay uppercut go une deux trois fois ah cinq avertissement yi fii lay ñëwee. Tapha mm. Tine aussi ça il faut ñu comprendre que Tapha Tine xeex ba xeex ba mën na bëggee te xeexu Tapha Tine ba sax nekkul xeex bu extraordinaire. déedéet. Mm. Tapha Tine xeex bu ëpp ci ci moom mooy bu ngeen langaamontee. waaw te contre Elton la ko wane Bombardier mais voilà parce que boobu tax aussi il était plus svelte. gën a oyof gën a gaaw voilà moo tax ñu ne at yi buy dem poids bi day yokk njëriñ ko di ko ci at yooyu laa jëm mbër dina nekk xale hmm. bien entouré hmm. staffam permettre ko muy nax ay moroomam hmm. comme le cas de Boy Niang ndax un bon staff ci biir bëre mën na la nax parce que ñi mën na bëre te aussi ñi ko wër ay ndaanaan ñoo fa nekk mais plus ngay màgg est-ce que du moment boobu na xale bi fuggam dafa war a di réactionner. ok ak lu ñu mën a conseillé ci làmb ak ku mun doon yow élément déterminant bi yow la. Mhm. des fois ñu conseillé sax ci làmb loo xamante ne dem nga boo trouvé loo xam ne boo ko defee yow da ngay mais loolu nag léegi la fa yóbbu pour nga gagné ko nag dafay nekk sa sa fugg dafay nekk sa détermination. Mhm. sa sañ-sañ. Mhm. parce que bu ñu la nee voilà par exemple boo ñaa bu ñu ko nee pied droit ngay jiital adversaire bi jiital pied gauche léegi fexeel sa tànk yow di ëmb tànkam. est-ce que moom ëmb tànk boobu dina ko jubu parce que en général droitier yi des fois dañuy jiital pied droit dañuy am problème des fois seen côté gauche. donc léegi ëmbal tànk bi lañ lay wax donc donc kii di euh, Boy Niang pour mu ëmb tànku Tapha Tine kon boog warul léegi de. Hmm. dafa war a dem à sa droite moom moom loxo ndeyjooram. waaw fa la Boy ah, war a dem côté bii la war a bëri. la war a bëri ji pour éviter le crochet gauche bi nga xamante ne moom la Tapha Tine di envoyé xam nga nag ki jëm fii moom ko dóor. kiy jëm fii da nga daje ak moom. Mm. donc Boy Niang à chaque fois muy tourné rek fi la waroon tourné dina ko permettre mu def un pas le temps que Tapha Tine Tapha Tine di réagir mu actionné. saa bu defee un pas Tapha Tine foog mu tourné jàkkaarloo moom. waaw parce que il bëgg wër. da nga koy mm. jàkkaarloo mais kii reculé nag tout le temps yaa ngi avancé jëm ci moom avancé jëm ci moom. Mm. donc il devait tourner sur sa gauche. pour mën a dugal direct sax pour mun daw. def ko attaque surprise. en tout cas li mu mën a wax daal foofu mooy Boy Niang séntu woon nañ ci moom beneen xeetu bëre xaw ma lu ko gàllankoor nag xaw ma bi ñu ko teg la xaw ma lan la xaw ma lan la mais en tout cas on attendait un un Boy Niang plus explosif plus vif plus déterminé. parce que li ko waral rek moom mooy les cinq imagine-toi cinq avertissements en avant la mi-temps. avant la mi-temps dans ci 15 minutes en moins de 15 mën a comprendre ci 30 minutes yu njëkk yi Boy Niang am ci cinq avertissements. loolu sax c'est pas méchant. et son premier avertissement il a eu dans le combat ci biir combat bi la ko am. ah mais yëpp ci combat bi la. cinq yëpp ci combat bi la te yooyu mooy début bi. après tout imagine toi moins de 15 minutes. cinq avertissement loolu moom mooy disons chaque 3 minutes génn na. Hmm. wala un peu moins de 3 minutes. un waaw donc nag loolu euh, c'est pas loo xamante ne moom la euh, le monde gis ci Boy tey daanul Lac de Guiers. Hmm. daanul Tapha et Balla Gaye est devant est-ce que booy oh. Niang ak Balla gay war na am donte joxe nañ avance. ah xam nga avance moom bu xasee dugg rek <laughs> am na avance bu xasee dugg ci mbir rek combat bu am la combat boo tam mën naa neex mais eh, eh, bu àggee ba ci combat ba ñu ci bari espoir bi ñu amoon ci moom. pour mu ah. daan ko def ko Balla Gaye. Hmm. espoir bi day yàqee ko ba keroog muy indi nag surprise attention lamb dafa compliqué te doy waar. donc boo Niang bu fekkee dafa war a bëri ak Balla moo ne ci kanamam il va falloir quand même euh, mu redoubler mu gën a liggéey bu ñëwee ni ci bis boobu nag ci la boo boobu waatam la nag. Mm-hmm. parce que mu ne Capacioli il est aimé. Mm-hmm. il a rempli stade comme adversaire am. Mm-hmm. gars yi bëgg nañ ko le gentleman de l'arène. il est technique ay ah, c'est calculateur la. ok mais nag su fekkee da nga par. Euh, euh, Lac de Guiers jàllul nga ñëw passewaat par Tapha Tine Diallo. Mm. ah gars yi dañuy commencé douter waaye yow bul douter parce que ci carrière la nekk parce que bu amee en cas de victoire ci Balla Gaye oh, dañuy fàtte lépp lu fi jaaroon waaye nag kooku tam c'est un morceau morceau bu dëgër la bu diis encore contre Balla Gaye beneen gros morceau la boo xam ne pression lay nekk ci moom beneen guro morceau la boo xamante ne et il va falloir quand même tous les moyens arsenal yëpp. pour mën a génn ci combat boobu donc Boy Niang ne nii. par Balla Gaye du Tapha Tine de. waaw ok c'est vrai Balla Gaye Balla Gaye il mën na am. Tapha Tine day dox nànk di ñëw Balla day ñëw. mën na am changement ci kaw xëy na sax ku mel ni Balla la la gën a mën a bëreel ci ku mel ni ah, que booy xool ñaari gis ne euh, Lac de Guiers dafa ñëw tëj bëre jàppante bloqué. téye moom ci jafe-jafe. Mhm. tey Tapha Tine ñëw defaat même chose tëj bëre avancé ci kawam donc day gis ne kon kat ah Boy Niang nag kuy bëri la mën a bëreel waaye ku téye boppam bëri moom day jafe. mais père.